man dama mon ben question amon na sax ñaari question mais bon répondre nga benen dernière question par rapport ak sa neutralité mais man bëggon na rek fofu rebondir nga wax ñu ci slay manam ci lañu mëna sukkandiku ñun pour mëna wax ni yow mi neutre nga ndax yow wax deug yalla ñaari casquette nga yor manam ministre de l'intérieur ak militant de première de la première à la paire wax deug yalla mbokk sénégal juk jotna deglu len ali nguy ndjay amna yene lol nak président Macky Sall gagne premier tour

waroon a tëdd tëddaayu njaaxaanaay ñeent parti politique yi ci Sénégal moom moo taxaw toog ci télé bi ne dina def lépp lu mu mën ngir Macky Sall gagné ndax jàpp ngeen ne kii tëdd na tëddaayu njaaxaanaay ndax jàpp ngeen ne kii dina daa jaarale yoon yéen ñëpp gis ngeen li fi xewoon ci élection législative yi gis ngeen li xew dakaar gis ngeen li xew tuba gis ngeen li xew Abidjan gis ngeen li xew Marseille ak feneen ak feneen kun jàpp ne doo votel Macky Sall soit doo voté soit dinañ saboté ba vote yi sax daanaka da nga koy dégg rek waaw léegi nag luy jot jot na foofu ñëpp taxaw wan ñii ne moomuñu ñu non seulement respecté wuñu ñu ngi pasar pasare suñuy koom waaye ku ci toog di wax ak sénégalais rek day mel ni moo ñu jur cër amul respect amul amul benn worma bu ñu jox sénégalais yi ndax lu leen neex wax lu leen neex def loolu nag li ko waral mooy danoo toog seetaan leen nañ jug nag nañ jug dem inscrire ji te gannaaw loolu nañ ci jàpp ñëpp jàpp ci pour Macky Sall jël élection yi jox ko keneen ku dul Aly Ngouille Ndiaye mu dem ci yeneen i loxo ndax réew mi nag suñu réew la ñëpp ko bokk kenn ëppale fi kenn Macky Sall dañ ko dénk rek suñu mbir mu ko koo doxal niñ ko ko waxee waaw wasalaam